nit dama koy faral di wax noo jaamu jaamu yàlla te respecté nit ax nit xam ne nit yàlla moo ko teral am na lu bëri lu des war nga jàngiwaat léegi gis nañ tamit si dëkk bi ñenn ñi dañuy wax di xajale nit ñi ndax bokkuñu tarixa wala bokkuñu koñ wala qui serrer le qui joolaa le qui halpular la alors que Sénégal ku mel ni ay Cheikh Anta mag muy magu diine yi ak magu aada yi fexe woon nañ intervenant wax parenté à plaisanterie muy cousinage muy kal té waxoon nañ ko fi aussi si suñu ben gingembre yoy da dan am tax soo naree mer mu dëfal la nan nañ mën def tamit nit ñi ku nekk xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk président dañ ko fal pour benn temps su paree day dem moom am na tamit loo xamante ni daf ko war a def ngir askan wi ndax loolu jox nañ ko ay moyens aussi li mu si mën mu war ko mën a def du dëgg soo paree professeurs yi jàngale bi dañu war a dem jàng police yi nekk si tali bi wax nañ ko ñi nga xamante ni si ñoom du ñëpp heureusement ñu ngi jël xaalisu nit ñi indi wuñu sécurité karangé lolu baxul wax day lèr ki nga xam dafa nek entreprise aussi na fexé ba entreprise am mu respecté ñu fay liggéey parce que damné nit dafa noble noblesse bo xamante Mono ko jël rek pour utiliser ko sanni. voyez lolu moy lan ñun ñëpp ci suñu ay kër suñu gorlo ciow day am yenn say c'est normal mais nañ déglu respecter nit ki soo demee si koñ bi koñ bi xaw na salte tuuti lan moo tax man may xaar maire pour mu ñëw baleel ma suñu buntu kër man benn grand artiste expliqué ma fan yële mu ne dafa ñëw commencé di nettoyer ak yooyu ay booy ñëw ay jeune ñu ne ñaata nga ñuy fay seen koñ ñu koy nettoyer ñu ne ko ñaata nga ñuy fay pour ñu nettoyer suñu koñ mu mooy nga mën a fàtte sa bopp ngir ñun ñëpp lu ñu bokk mu njariñ ñëpp jariñ la na nit ñi man invité mais que dem stade 40 000 personnes nous nous sommes au minimum 16 millions de sénégalais 16 millions de sénégalais Nous avons dougal si stade Nek, ñun def personnes am am avons am lu tax ñuy invité carte nanga am ba benen occasion am je suis def man man fuñ ma wul fuñ ma invité wul la yenn ne fii waroon fa suis du ma sonn ngi xaar aussi nit am discipline